waral door lëkkaloo ci diggante nguur gi nga xam ne ni Bassirou Diomaye Faye moo ko jiitee ak pencum ndaw réew mi nga xam ne ni Amadou Mame Diop moo fay njiital la mu di ñaari nit yu am dayoo ci biir réew mi ba tax na bi nga xam ne ni dajee nañ ca pale ba mu mel ni dañoo fas yéene woon gannaaw coow li nga xam ne ni moom moo tukkee woon ci jafe-jafe yi ñu waxoon am na ci diggante institution yi moom njiitu réewum Sénégal Bassirou Diomaye Faye yàgg wax ni daañu amal coppite ci bopp réew mi li ci mel ni ci wàllum institution yi ci système électorale bi ak yeneen yi ni mel mu di ay coppite yu bëre yi nga xam ne ni yenn yi faw mu jaar ca pencum ndaw réew mi ngir ñu mën koo jëmmal moo ne bu nekkee gannaaw bu ñu jugee ci jongante falum jiitu réew watum 2024 Bassirou Diomaye Faye moom moo jël raw gàddu ga waaye ba tey ci pencum ndaw réew mi dooleem taxu ko demee noonu ba tax na bu bëggee jëmmal yi la coppite faaw rek mu mun a lëkkaloo ak yeneen groupe parlementaire ya fa ne rawatina bu bennoo bokk yaakaar lépp lu jëm ci projet de finance ci ngomblaanu réew mi lay jaar waaye it am na yeneen dogal yi nga xam ne ni Bassirou Diomaye Faye namm na koo jël lu ci mel ni yokk gafag ak yenn ministères yi moo ne njiitu réewum Sénégal mën naa neenal pencum ndaw réew mi ci weeru septembre ndax weer boobu day méngoo ak ñaari at yi nga xam ne ni ndeyu charte réew mi may na ko njiitu réew mi ngir mu faxas ab institution waaye loolee day woroo ak li nga xam ne ni moom lañu yàgg woon askan wi ndax député yi nga xam ne ni ñoom ñoo ne ci réew mi leen fal te bëgg leen fee jëlee day mel ni neenal bëgg-bëggu askan wi bu dee ñu bëre dañoo jàpp ni am na solo it njiitu réew bu ñu fal yees ñu mun koo dooleel pencum ndaw réew mi ndax programme yi nga xam ne ni moom moo tax ba ñu fal ko mu mun koo jëmmal te du am benn gàllankoor waaye it waxtaan ci diggante institution yi doon na li nga xam ne ni day taaral démocratie réew mi waaye ci kaw ñu bañ cee def yaama neex ak i fayantoo waaye demal ak seen xel ak seen sago ngir njëriñu askan wi